ok nuyuwaat naa leen jërëjëf euh, président dama sàkku li ñuy woowee motion préjudicielle te article bu const euh, bu règlement intérieur bu assemblée nationale may ko bépp député bu ngeen déggee baatu préjudicielle mooy luy jiitu monsieur le président de l' nationale li may waaj wax ni aw ma fu ma koy jooytu jooytu naa ko biir commission ñu ne ma yow la ak bureau la dama bëgg a jël à témoin tous les députés y nga xam ne ne nag injustice la ñuy xeex tey mënuñu xeex injustice en faisant l'injustice ñu ne ok Karim Meïssa Wade ak yeneen candidat dañ leen génnee ci liste foog ñu leeral ko d'accord na mais dafa amoon ay proposition d'enquête parlementaire yi nekkoon ci liste ñu génnee yenn yi loolu buñ ko leeral commission d'enquête parlementaire ba pare numéroté ko man samay bos ak bosu ñeneen ndaxte dégg naa barki démb ak barkaati démb am na ay député Benno Bokk Yaakaar yi déposé commission d'enquête parlementaire ñu def leen li ñu def samay proposition man xeexuma ko sama bopp de bu dee am na député Benno Bokk Yaakaar yi déposé commission d'enquête parlementaire te faale wuñu leen de manière illégale arbitraire et antidémocratique du dëgg du yoon donc man li may intérêt général la dama ne commission enquête parlementaire pour leeral l'affaire Karim Meïssa Wade et les autres am na solo waaye mënul ëpp solo kaawu béykat yi nga xam ne moo ko jiitu mënul ëpp solo kaawu étudiant yi nga xam ko jiitu wala dañuy xool lépp en même wala ñu xool ko par ordre d'arrivée man dama dugal commission d'enquête parlementaire pour ñu leeral ci wu béykat yi fan la jëm ñu ne loolu duñ ko xool dañuy xool Karim Wade et autres man contre ma ñu xool Karim Wade et autres mais tous les députés dañoo war a ne c'est antidémocratique ma dugal commission d'enquête parlementaire pour étudiants yi nga xam ne ñu ngi grève daf amuñu ay amphithéâtre yu doy ñu ne boobu duñ ko xool te boobu moo jiitu postu candidat yi élection présidentielle moo ëpp solo lii mooy sama motion préjudicielle monsieur le président de l'Assemblée nationale dama dugal commission enquête parlementaire mais pour xam suñu mbokk ASP yi lu tax ñuy toog ay weer kenn du leen fay lu tax seen payoor di tardé policiers yi lu tax seen heure supplémentaire di tardé ñu ne kenn du ko xool ndaw yi ñu ngi dee ci géej gi ñu ngi dee ci yoonu Nicaragua ñu ngi dee ci désert bi Sahara ma dugal commission d'enquête parlementaire pour xam lan moo tax ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci programme xëyu ndaw ñi seen payoor di tardé régulièrement ñu ne kenn xool commission d'enquête parlementaire boobu monsieur le président dama bëgg a xam lu xew ndaxte député yi nekkoon commission te bokk bureau nee nañ ñëw nañ bureau ay yoon ki yoon kenn mësu leen wax ne nit déposé na waa conférence des présidents nee nañ kenn mësu leen wax ne ay nit déposé na donc président de l'Assemblée nationale vous êtes interpellé mais bu fekkee ne nañ dañoo bëgg a leeral mais leeral fii lay commencé biir assemblée leeral du commencé conseil constitutionnel leeral day commencé si biir ci bi ñu doxalee dama bëgg a leeral dama bëgg a leeral te leeral fii lay commencé ana xaalisu assemblée nationale ana bu ana 23 milliards assemblée nationale ana commission contrôle et comptabilité bi nu daje mais leeral fii lay commencé nit da ngay ci principe nit da ngay nekk ci principe ndaxte principe mooy indi ñu kii dañ neexul ba neexul say bu lii amee ak ku mu lii mooy position am waaye yow buñ la laalee nga ne ok buñ la laalul nga ne ok mais paysans yi il faut qu'on les respecte dans cette assemblée c'est a ñàkkal yi nga xam ne dañoo ne dañuy taxawal commission enquête parlementaire moom ngeen di ñàkkal fayda étudiants yi ak seen i yi nga xam ne damaa dugal commission d'enquête parlementaire ñoom ngeen di ñàkkal fayda ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk programme xëy ndaw ñi ñi nga xam ne damaa dugal commission d'enquête parlementaire ngeen teg ci seen tànk ngeen teg ci seen conc ni seen président Macky Sall ñoom ngeen di ñàkkal fayda indi lu ko gàtt ñun ñuy xool ñun ñuy xool jëf mooy nattukaayu dëkk te lii mooy seen jëf mooy xàjj seen mooy anti démocratisme mooy député am ndey ak député amul ndey mais pire citoyen am ndey ak citoyen amul ndey citoyen béykat yi amuñu fi baat waaye citoyen candidat yi am nañ fi baat xëyu ndaw ñi amul waaye candidat yi am nañ ci baat monsieur le président de l'Assemblée nationale vous êtes interpellé